seen cabinet nii na ñoo leen andil ay xeetu jaaro yu doy waar loolu di dox si wàllu karange wërsëg bayre ak ubbeeku bu doy waar jigéen gu am faru rab wala góor gu të ba sa jigéen ju taxaw jaaro yi dafay dëppoo ak sa tabia sa bidéew say sarax ak sa couleur ngir nga mën a am si jaaro yooyu jokkool ak waa Nasrul Muminina di ay boromi xam-xam yu mag si biir réew mi produit bio 100 pour cent Nasrul Muminina amu si morom si wàllu néew kattan hémorroïde ndoxum siti ba si tawati jigéen ñi ngir jokkoo ak ñoom wooteel gaaw gaaw si 78 445 0419 wala 76 362 75 14 Nasrul Muminin nag garab ak gàncax mooy xeetali jullit yi di saafara seen jàngoro. ndeysaan ci noonu nag la mère Awa dal di yuuxu bi nga xamee ni woo nañ ko téléphone jamono yooyu moo ngi jógee woon ci ki nga xam ne mooy Nabou ak Yaama ginnaaw ñoom ñaar seen waxtaan bu waxtaan woon ba déggoo ci problème yi xewoon yëpp ci épisode bi weesu épisode bi fi mu jeexee son bi dafa amoon jafe-jafe droit d'auteur moo tax ñu dagg ko moom lañ leen ni leeral nii ci début épisode wu 15 bi bi nga xamee ne maire Awa ñëw na di wax ak doomam Yaama ngir woo ko mu nekk ci bâtiment wu tàntam bi maire Awa ne ko bu fekkee da nga nekk sa tànt naa la bàyyi ba ñu leen déranger noonu ñu tooñante daal wax seeni wax ba maire bi ñëw ci néegam téléphone am daal di sone mu décroché appel bi ñu tàgge ko ki nga xam ne mooy yaayam di maire Adja Daba maire bi nga xam ne moom rek la desee woon comme way jur nekkoon xaritu yaayam nekkoon ku baax saa bu nekkee ci jafe-jafe ba àdduna tënk ko mu jaaxle ci moom lay dem nekk ci moom mu koy dëfal di ko dalal ba juboo bu mu ba mu juboo ak ki nga xam ne mooy nabu ba nangu sëy bi nga xam ne lépp jàll na ci jàmm ba nabu sëy si yooyu yëpp ginnaaw yàlla mère Adji Daba moo ko waral moo dox loolu taxoon na nag mu nekkoon ko amoon importance ci dundam waaye ndeysaan ginnaaw dund dee bakkan bu ñoom dund danañam dee ci noonu nag la waa kër yëpp ñëwee daal di defal maire bi xamal ko ne ko nag ñun ci yàlla lañ jógee te ci lañuy delluwaat noonu Abdou daal di mu defal maire Awa waxtaan ak moom bis boobu occasion la woon ci Abdou ginnaaw tëju bu mu tëju woon lu yàgg nangut a génn waaye comme yëg na ne yaama ak nabu juboo nañ xam na loolu ci bis bi la ko xam bis boobu ci la loolu xewee itam noonu itam la mën a génnee ñu defal ki nga xam ne mooy mère Awa jamono yooyu yaa maa ngi jooy ndax moom itam mère bi gaañu maam la ci moom da ko jàppoon comme maamam ndeysaan nabu itam bët na ay bëtam di jooy jooy dëgg la wala du dëgg wallaahu axlam yàlla moo xam noonu la ñu dundee événement boobu préparé wu nag tëj seen kër gi xale yi doon jàng sax nga xam dañoo waroon jàng mère bi daf leen jëlal feet pour ñoom ñëpp ñu ànd dem kër mère Adji Daba def fa ñetti fan yoo xam ne dañuy ànd ak ñoom dëj bi dëj bi nekkoon na lu bari woon mbooloo nit ñi bari woon fa lool mbokk yi fu ne lañ doon jógee di ñëw taala itam niki noonu bi mu yëgee xew-xew boobu mère Adji Daba doomam ya nga xam ne ñoo fa nekk taala yónnee na xaalis ki nga xam ne mooy awa xaalis bu takku ngir mu jox ko doomam mi jaale ko ñoom it jaale nañ ko awa itam bis ba amoon na fa cër ak dayo ndax maire bi da ko considéré woon kon doom comme doomam mbooloo mi bari woon na lool ñi ñi seereel maire bi seere yu baax mu nekkoon ku baaxoon ku laabiroon waaye ku dëgg woon ku amoon xol bu rafet awa sentir nag ne am na parte bu mag ci àddunaam bu mu ñàkk ci dundam mooy kenn koo xam ne moom la dese woon ci wayjur kon mën na ne awa léegi ceexal na wayjur takk ndeysaan dese ak yàlla rek ak ay doom yi nga xam ne ñoom sunu ko suñu jox noonu lañ ko doon dundee waaye ci dëj boobu itam awa gis na fa lu yéeme ndax dafa gis benn xaritu papaam boo xam ne dafa ñëwoon di jaale si moom mère awa góor gi nag léegi mag la xaritu baayam la woon ndeysaan mu ñëwee di jaale si bi ko awa gisee rek dafa tiit seen bëti bi mu ñeentee ñoom ñaar xoolante paa bi itam dafa am kersa lool nag daal di sëgg awa bi mu paree ci mbooloo mi nga xam ne ci la toogoon ak ñi nga xam ne ñooy mbokk maire bi doomu maire bi mu toogoon ci ñoom mu daal leen tàggu ne leen dafa am ku ma bëgg a sax sama benn xaritu papa maa ngi ñëwaat ñun ko baax na garaawal mën ngaa dem loolu kay dara awa ci gi ak naqar bi nga xam ne ci la nekk teewul mu jug dem ba fi nga xam ne fa la xaritu papaam bi toog mu daal di nuyuwante ak moom jàmm sant ak moom ne ko bëgg naa la gis waxtaan noonu góor gi daal di jug comme ci mbooloo lañ nekk ñoom ñaar ñoo ànd génn dem toog foo xam ne kenn newu fa ngir ñu mën a toog waxtaan loolu da koy faral di gis mbooloo bu amee ñaar da gis ñenn mbokk yi nga xam ne gën nañoo gisante bu ñu gisantee am nañu war a waxtaan mën nañ profité ci xew-xew boobu occasion mën a toog waxtaan loolu day bari ñu koy faral di gis ci xew yi nga xam ne ku nekk sa bopp ngay toppatoo sa bopp ngay lijjanti foofu ñoom ñaar toog waxtaan awa daal di ne ko man de damaa jaaxle lool ndax dama def effort yu bari pour gis la. waaye loolu dafa nekk loo xam ne lu ma jafe la mu ne ko ah mbaa jàmm la mu ne ko ah man kat sa numéro bi ma ko enregistré ginnaaw bi woo naa la benn yoon daal jot pour moo jotaat la jafe-jafe la te yow xam nga ni nga meloon ak sama papa sama papa sa xarit la woon sama goro bi nga xam ne itam maanaam sama goro bi nga xam ne itam moo nekkoon papa yi sama borom kër waaw sa papa yi sama borom kër taala moom it sa xarit la woon ginnaaw bi sax dégg naa yàquwante ngeen yéen ñaar ngeen bàyyi amoon problème wante waaye ay waay ngeen woon waaye teewul sama papa moom sa xarit la woon loolu moom dara mosu koo dindi. te itam yow yaay ki mu mujjee waxal téléphone ndax bu fàttaliku ne yow bi mu wax ak yow téléphone jour boobu ci la daanu crise malaisam boobu ba ni mu faatoo góor gi ne ko loolu yëpp yëg naa ko bi ma ñëwee saraxam jaale si ko dama am kersa naqar loolu looloo tax sax ma disparaître kenn gisatuma ndax yow defe naa yow rek yaa xamoon ne man la mujjee waxal téléphone te yow itam xam gi nga xam sama kóllëre ak sa baay moo tax sax jéemoo xool lan lañu waxante ñun ñaar waaye nag xam naa ne loolu jaaxal na la aw na ko loolu nag moo ma jaaxal duma la ko nëbb de waaye lan nga waxante ak sama papa ba mu daanu téléphone crise ba noonu ca la jaaree faatu lan la góor gi ne ko billaay walaay awa bañ la ko wax moo tax ma di daw yëg naa ne sa boroom kër bi ginnaaw bu mu la bu ngeen fi sa papa nelawee toxul ngeen dem ci beneen kër dëkk fa ba mu takk ñaareel te sa jànq bi la takk lépp maa ngi koy dégg ndax koñ bi fii dara du umpe te maa ngi fiy déggante ak ay nit téléphone waaye li tax mënumaa ñëw sa kër mooy bëgg ma ñëw fa nga may laaj lan laa waxante woon ak sa papa ndax loolu xam naa ne jaaxal na la xam naa ne yow ku intelligent nga macha allah ku am xel nga naa ne loolu faw rek. maanaam di nga di nga di di nga ma ko laaj te loolu nekkul lu may gënal ndax na mu naqari sa papa ba mu faatu bëgguma wax la ko yow mu lay naqari ba indi la ay jafe-jafe noonu aw daal di koy waatal ne ko man dey defe naa ne li ma dund ci àdduna mënu maa dund lu gën a métti loolu aw nettali ko lu bëri ci lu mu jot a dund ak borom këram ak fi mu jaar ci xew-xew yi xew yëpp ak situation yi nga xam ne mu ngi koy jànkonteel te lépp mu koy góorgóorlu lu ci muñ góor na xam ne awa jàmbaar la góor gi ne baax na xam naa ne sax loolu ab bor la boo xam ne dama la ko yoral yoral ko sa baay te war leen koo fay mooy wax la li nga xam ne moom laa la wax sa baay te àggaliwu ma dama commencé ba ca digg ba rek sa papa daal di coupé daanu foofu laa yéegee ne foofu la daanoo amoon jafe-jafe léegi nag li ma lay expliqué nii dama lay ñaan bu mu la métti bu mu la naqari ndax lu paase la lu jàll la li tax ma doon ci wax ak sa papa mooy dama ko yéex a yëg bi may nekk Casamance boobu laa koy dooru yëg bi ma yëgee loolu nag ci laa ne xaaral ma woo sa papa waxtaan ci ak moom ndax loolu métti woon na ma mun na ko nag waaye loolu nii la demee noonu góor gi tàmbali di ko nettali awa aw fi mu toog muy sëgg ci suuf si di xool di déglu ko góor gi wax attentivement mais nag wax jaa ngi métti ci moom rëy ci moom aw jël ñaari loxo yi taf ko ci gémmiñam li sarax bi métti métti dëj bi li muy métti métti métti ndax ki gaañu yaayam la teewul ay rongoñu awa mu ngi génn awaa génne ay rongañ di jooy góor gi di ko expliquer di ko expliquer di ko expliquer lépp loo xam ne moom la waxoon papaam même li nga xam ne jotu koon wax sax mu leeral ko lépp noonu nag góor gi ngi gisee awa nag sëgg di jooy jooy yu métti mu daal di koy tàpp tàppal noonu daal di koy tàggu ne ko maa ngi dem yàlla nañ gisantewaat ci jàmm awa awa jox ko loxo ne ko baax na jërëjëf kontaan naa bu baax nag noonu la góor gi daal di dem awa nag foofu noonu yaa ma bu mu leen séedee ñoom ñaan ñu waxtaan dafa daal di ñëw ne ko yaay lan la lu xew yow paa bi lu ngeen waxtaan noonu yaay ji na ko dara affaire sama maam bi la rek sa affaire sa maam mère aji daba bi la. mu ne ko waaye loolu loolu dëgg la mais muñal rek yaay yaay muñal rek yow wax na li ñuy wax ba pare muñal rek noonu daal di yëkkati yaay ji nax ko ba dugal ko ci biir yaay ji toog yaay ji nag foofu la àdduna àddunaam tukkee mënatul lekk mënatul naan muy xalaat rek xalaat boobu. topp na ko ba ni mu ñibbisee ci kër gi wallaay fu mu toog day xalaat rek maam gis nañ ne daal am na lu bëri lu changé comportement moom awa ndax léegi waxam bareetul jàmm ji sax dafa wàññeeku. amatul appétit ci lekk amatul appétit ci dara day toog benn place rek kër gi nag lan lañ yaakaaroon nabu abdu ak yaama ak waa kër gi yëpp ba ci xale yi dañoo yaakaaroon ne rek li ko dal mooy li nga xam ne mooy dese meer boobu di meer aji daba. jàppale nañ ne loolu daal mooy li nga xam ne moo ko indi ci étape boobu mu nekk ndax dëgg la ñaari mbir la awa boole ginnaaw dese mère Adji Daba bi def na jeexit ci moom mu gëm yàlla xam ne yàlla mi ñëwoon jël yaayam jël papaam yàlla moom moo ñëwaat waaye nag dafa am leneen loo xam ne daf cee dolleeku mooy la ko paa bi wax lan la ko paa bi war a wax nag paa bi lan la waxoon baayam baayu awa ba baayu awa génnoon àdduna affaire bi daaneel leen ko kiri feebar ba mu jaare fa loolu la waxaat awa loolu nag mooy lan xëy na dinañu ko xam ci kanam incha allah waaye daal bi nga xamee ne xew-xew boobu jàll na jamono yooyu itam Moussa ñëwoon na ca fa nga xam ne fa la sarax si xewoon jamono yi avant ñu ñibbisi ñëwoon na fa jaale si yaama ki nga xam ne mooy maamam boobu gaañu di xaritu yaayam di xaritu maamam boobu nekkoon yaay ci yaayam waaw Moussa nag jamono yooyu dafa yoroon téléphone buy connecté wu ndax ci la daan connecté buy ñëw kër ñoom yaama jamono yooyu téléphone yi connecté wu bariwul woon waaye yaama amoon na benn boo xam ne papaam mu ko àndiloon ci histoire bi yaama amoon na ci téléphone boo xam ne papaam moo ko àndiloon jamono yi nga xamee ne papaam jógee na bitim réew te àndiloon ko montre boobu mu bëggoon a may Moussa te doon xaar occasion ak bis bu rafet pour mu mën ko may Moussa ndax yéene woon ko ko. te boobu moom Moussa seen relation demeegul noonu ndax montre góor la te montre bi dafa rafet lool waaye ba tey yaama joxagu ko Moussa daf koo denc waaye nag li nga xam ne moom mooy portable boobu ci lay déggante ak Moussa téléphone waxtu wu mu ko soxla ba nga xamee ne nekk nañ ca sarax sa avant ñuy ñibbisi itam Moussa woon na ko ci numéro bi ba jot ko mu tegtal ko fi kër gi nekk mu ñëwoon jaale si noonu lañu ñibbisee mère Awa fu mu nekk day julli sunu boroom tabaraka wa la mu jéggal way juróom yi nga xam ne ñoo jiitu di papaam ak yaayam ak yaayam ju baax jooju di mel aji daba ndeysaan mu nekkoon lu triste lool jamono yooyu itam jàmm ak déggoo dellusi na ci kër gi ndax yaama juboo na ak tàntaam léegi moom juboo am na ki nga xam ne mooy moor itam mooy abdu itam ki nga xam ne mooy nabu ñëw na waxtaan ak moom dafa nag li ma bëgg mooy lépp lu ñu doon def nañu ko bàyyi jamono yi ñu toll nii ba ca kanam la tax mooy nabu euh, euh, yaama ñëw na sama néeg waxtaan ak man problème bi aw yëggu ko noonu taala ne euh, Abdou boog ne man xam naa ne aw yëggu ko ndax ne aw comportement laa xam ne yëgul problème bi problème moo xam naa ne yaama kese moo ko yëg ci kër gi yaama nag neexul ba neexul mais bon xale bu sérieux la xale bu règle la xale bu baax la yaama mii day su ma sox soxna. yàlla na ma yàlla may ma am doom ju mel ni moom loolu mu wax ko nabu nabu na ko nag li ngay wax gëmoo ci dara ndax nabu wax ji sax neexu ko ndax yaa ma doomu bu jëm la ko jàppee jàppewu ko doomu boppam ndax li muy woote nekkul ci moom nabu nabu dafa nekk nit bu foo su ne la su la dinaa def lii su la indi naa jàmm changé naa nangam nangam nga jàpp loolu fekk loolu nekkul ci moom fekk ab temps la rek dafa jaaxle rek mais su temps boobu jàllee day del day delluwaat ci ñàkk jom gi waaye teewul nag jamono boobu moom doon na maslaa bu baax te itam jëloon na décision moom ak Abdou ñu arrêté yu ñu nekkee ba ca kanam ndax wóorul nag xabaar bi di tasaaroo bay àgg ci borom këram te loolu problème bu mag la jamono yooyu itam taala doon na woo ki nga xam ne mooy awa di waxtaan ak moom di ko dëfal ci mbirum meer boobu ni ko noonu taala doon na woo nabu itam di waxtaan ak moom lu bari ndax nabu mooy soxnaam su ndaw di siitam noonu la ñu wéyalee woon seen nekkin amuñu woon benn jafe jamono yooyu itam ki nga xam ne mooy nabu doomam jooju di papa mu ndaw moo ngi màgg nànk-nànk papa moom itam dafa bari woon jooy lool nekkoon xale bu naqari deret maanaam daal mayul yaayam jàmm yaay ji itam da koy sàgganee di ko sànni maanaam yitte ja war a def ci moom dëgg-dëgg defu ko waaye awa moom daaw ko seetaan fu mu nekkee di jooy day ñëw ne ko yow na bu doon nax sa doom ji nga bàyyi ko ni muy jooy rek na mu ko billaay xale bi dafa weex dafa naqari commencé di ñaxtu nga xam ne awa mooy mujj jël xale bi fob ko naxtaan ko yóbbu ko ci bâtiment am jox ko lu mu lekk toppatoor ko ba xale bi dal bu daal di dalee mu tëral ko néegam mu nelaw nga xam ne na bu day nekk ci ay mbiri boppam nekk ci ay yitteem des fois mu ñëw ci bâtiment wu awa daal koy tàggu ne ko maa ngi génn dama bëgg a dem marché ba wut fa wut fa dara jënd fa dara aw ne ko kon baax na waaye bu guddee nag pour sa xale bi comme da nga ko fee bàyyi mu bañ a nekk di yeewu di jooy lañ doon dunde bitig ba itam ki nga xam ne mooy awa moom lañ ko tegoon ci loxoom waaye ngir bëgg lu rafet daf ko bàyyee rakku jëkkëram boobu nga xam ne mooy Abdou Abdou di ci liggéey di ci jaay bénéfice bu nga xam ne bitig bi génne na ko lii dañ koy dajale ci li ñu war a jëndee marchandise dolli ci loolu da koy bàyyee ak Abdou mu seere ko ndax Abdou comme am na expérience bi ci wàllum njaay bi moom nabu dafay moom awa boog day obligé bénéfice bi mu wax jëkkëram ñaata moo fi nekk lii mooy marchandise bi li moo jëm ci mbirum dépense kër gi noonu la ko awa di doxalee ba lépp di jaar yoon waaye foofu itam awa benn bis ñëw na waxtaan ak ki nga xam ne mooy Abdou ne ko nag man dey bu doon sama sako da ngay wut ay papier ngir nga mën a ubbi compte banque boo xam ne compte épargne lay doon comme yàlla def na amoo benn dépense boo xam ne yaa ngi koy koy génne ci kër gi li ngay am li ngay am yëpp ñu la koy fay ci bitig bi ci sa jëmm lay dem maanaam ngay dajale xaalis boo xam ne danga koy dugal ci sa compte di ko denc exemple su demee ba mat exemple vingt millions di nga di nga mën a wut soxna ci deux millions rek di nga ci mën a wut soxna takk ko waaye la di nga ci mën a wut pàkk commencé tabax sa kër maanaam daal. nga am sa yëfi bopp ndax loolu mooy aveniru sa ëllëg ak sa njaboot ndax ragal naa boo fi nekkee fii ba yàlla dogal nga am fi soxna sa soxna ñëw fi dëgg la lu baax la ak yaatu la waaye su boobaa itam maa ngi ragal rek nga am xat-xat bis boo xamee ne dem nga ba say doom nekk fi xam nga kër goo xam ne say sa kër mag la say jabaru mag nekk fa donte amuñu benn problème nag mën ak na bu yëpp macha allah say xarit lañ waaye un jour viendra day ñëw. te yow jàppewu ma la sax nag jëkkër ak rakku jëkkër dama la jàppee comme frère comme ni ma jàppee sama borom kër taala na taala bu dara bu dara xewee maanaam bu lépp jeexee diggante jëkkër ak jabar bu jeexee maanaam moom ay doomu bàjjan doomu nijaay lañ kon lu ma ko war a jàppale ci xalaat ak yow it war naa la ko jàppale seetoon xalaat boobu aw wax bu doon yow la nga nekk ci position wu ki nga xam ne mooy Abdou da lay wóor ne wóor yàlla ne lim la wax muy dëgg sa bopp moo dàq fuux loo bokkaate ak yëfu yàmbur sa kër bàyyi sax sa kër bopp moo gën waaw waaye ab du ci ñàkk jomam ak ci daw responsabilité am wax ji daal xaw koo neex waxu dajale xaalis bi nag xam na ne moom dëgg la waaye kantaa génn kër gi di tabax kër boppam loolu daal nekkut loo xam ne lu ko neex la dëgg dëgg dëgg waaye nag comme li ko ndaw si wax dëgg la daf ne ko waaw li nga wax de dëgg la incha allah moom dinaa ci bàyyi xel bu baax. na na sa na sa xol dal na sa xel dal waaw loolu moom su ma feexee incha allah dinaa ci gën a waxtaan ak ki nga xam ne mooy sama borom kër di taala mooy mooy sama mag book mooy sama mag di taala su ko defee ma waxtaan ak moom ci loolu euh, ngeen xoolal ma nag bu ngeen gisee pàkk bu yomb rek incha allah lu ma njëkk a dajalee mu jëndee ko pàkk noonu awa na ko déedéet jarul jënd pàkk yow compte bi épargne bi fa ngay denc xaalis bi ba mu mat ab som comme som bi ma la wax nii su ko matee. bu boobaa yow da ngay fexe nga takk soxna parce que toll nga ci loolu nag moom yow yaay choisir nag bu la neexee su dee gis nga sax koo bëgg xam naa ne moom boo demee sax am na koy bëgganteel da nga koy nëbb daal di koy tooñ noonu mu daal di ree noonu mu ne ko waaw incha allah li nga moom moom xalaat bu jub te lu yanu maanaa la te ni nga ko waxee noonu laa koy defee mu ne ko kon baax na incha allah yàlla baax na yow yokkal góor góorlu rek fi moom sa kër la waaw loolu sax lu am solo ndax su yàlla defee nga am sa kër bopp day gën a yaatu. koñ bi rek mën nga fi am pàkk bu baax na koñ bi ay sañkaan la maanaam bëriwul ay kër noonu noonu noonu su ko defee yëf yi mën na gën a yaatu nga xam ne famille bu dajaloo lay doon day gën a yaatu waaye bi nga xamee ne aw wax na loolu waxam ju rafet jooju ba wane ginnaaw ki nga xam ne mooy Abdou daal di changé xar kanamam daal koy xeelu xam koo biiñ ci góor ñàkk fayda bay bëgg a dee góor guy biiñ mu daal di koy biiñ ne ko ah yow xam naa li nga bëgg siis dong nga def dangaa siis dangaa bëgg ma génn kër gi su ko defee yow ak sa njaboot ngeen aaki mook hmm. waaye yow comprendre loo kër gi li ma fi am hmm. kër gi ëppale ma fi de am naa fi dara de tàmbali di wax loolu di ko di ko ngurumtu di ko wax nànk mais loolu ñàkk jom ak ñàkk personnalité ak ñàkk nekk góoru yàlla foofu la tàmbalee yow di moy ak di ndamoo alal joo xam ne sa alalu bu mag la mag boo xam ne yow dem nga ba màgg doo koo xam ngeen bokk bàyyi mënoon nga dund ba deetu doo ko xam waaye ndeysaan nit ak jikkoom rek taala xëy na yarub maam la am maamam la yaroo gisul baayam gisul yaayam te maam ji itam ba ko yarit mag la la war ci moom dëgg dëgg dëgg mun ko matale lu lu yërëm ko rek ak di ko jox mu lekk jox mu naan te loolu du yar éducation xale da nga koy sàmm waxtu par waxtu heure par heure lu mu def lu mu dugg rek nga xam ko ginnaaw bi loolu jàllee itam ki nga xam ne mooy Moussa moom di copain wu yaama bi moom Moussa moom bi nga xamee ne toog na ay bis maanaam lu mat ñett jàpp ñeenti fan gisantewul ak ki nga xam ne mooy yaama déggantewul ak moom ginnaaw bu dëj bi paasee ni ki noonu yaama itam xalam mu ngi ci Moussa waaye gisantewul ak moom benn bis Moussa tëdd seen kër di nelaw maanaam waxtu woo xam ne maanaam waxtu njolloor la heure yi nga xam ne dañuy añ ba pare ñëpp di dallu liggéey yooyu Moussa daan def par journée di dem ñu ko jël stage di ko fay par journée liggéey yooyu jour boobu liggéeyul parce que frère la ñoom nekkul woon bi su liggéey nga xam ne dafa xëyoon dem sport ba ñàkk tooy xepp bi mu añee noonu nag sonn coono bi jàpp ko mu dugg néegam tëdd summeeku dese li nga xam ne mooy caleçon maanaam njitlaay la dese daal di tëdd noonu di nelaw comme célibataire la célibataire yi moom daanaka ñoom dañu am liberté ci seen bopp si néeg yi nu leen neex lañ fay tëddee ndax dañuy jàpp ne kenn du leen seet kenn du ñëw ci ñoom kenn amul ci ñoom soxla ba noonu Moussa tëddee noonu ak def yaramu neen yaama daal di ñëw ci kër gi lu mu musul def nag bi yaama ñëwee indi woon benn livre boo xam ne dafa amoon ay mbir yoo xam ne dañ ko waroon a jàng moom ak Moussa waroon ko remplir te livre boobu Moussa moo ko moomoon waaye comme moom dafa jóge woon sarax te Moussa yi xamul ndax yaama jógee na ci sarax sax xamu xamagul ci moom dara daal ndax déggante wuñu ma woo na ko jotu ko mu préféré ñëw seen kër sa fait location sax mu seet ko waaye waxtu woowu day waxtu woo xam ne neexut seetee nit mooy waxtu njolloor ndax nit ñi dañuy dallu waaye bi mu ñëwee mu fekk yaay Moussa ci kër gi nuyu nuyuwante ak moom laaj ko ana Moussa mais bi ne ko Moussa de moo ngi néegam di dallu ne ko yaa ma mbaa ci jàmm ana sa yaay naka sa maam bi sigil di gaale jaale maanaam mel ni ku jaalanteeg moom daal mais bi tam mel ni ko am mbégte ci kontaan ci ñëw gi fa yaama ñëw ndax yaama ñëpp xam nañ digganteem ak Moussa nu ñu xaritoowee mu ne ko sa waa ji denc ci biir di nelaw mu ne ko livre laa andi woon amoon lu waroon a xool man ak moom. ne ko waa jàll ci biir jàll ci biir bunt bi yaakaar naa tëjuwul waaye yaama bi mu duggee grande surprise mu fekk Moussa tëdd summeeku yaama am kersa ndax gis na ko ci melokaan bu mu ko musa gisee ndax li ñuy xamante lépp du koy gis mu sol yére waaye jour boobu dafa fekk mu def mu neen ba njiit laay kese la dese ba mu duggee ci biir moom ma kersa jàpp ko noonu mu daal di nuyoo daal di laal tànk Moussa bi pour mu yeewu waaye Moussa boobu yeewul mel ni daal nelaw yi dafa nekk nelaw yu xóot xam nga rek xale lu góor su entraîné su entraîné ba tëdd sonn nelaw yu xóot lay doon yoo xam ne caaxaan du ko yee. waaye yaama ni mu toggee ci lal bi noonu di xool Moussa di xool yaram bi mel ni seytaane daf ko bëgg a dugg xelam nekk ci li nga xam ne mooy jaxasoo góor ak jigéen ndeysaan ndax li tax mooy yaama léegi maanaam muskalaf la moom it toll na ci waxtu mu war a amee borom kër yëg-yëg boobu ak bëgg gi mu bëgg Moussa loolu xiir ko ci nag. maanaam mu xemmee ma jaxasoo ak moom waaye ñemewul woon amul woon fit ndax moom yarewuñ ko loolu te loolu jikkoom te itam nag su defee loolu xamul ba xam lan moo ko ciy fekk kersa looy goo xam ne ak gàcce goo xam ne Moussa mën na ko yeb te yebu ko te bëggul mu yeb ko waaye fi mu sëggee di ko xool rek seytaane dugg ci jëmm ji fees ci dell ba noonu la yaa ma loxoom daal di koy teg ci yaramu Moussa bi mel ni koo xam ne dafa jubloo foo ak moom waaye bi fu tolloog ay awraam foofu Moussa daal di tiit yeewu ndax am na loo xam ne bu ko nit laalee ci yow même booy nelaw sax di nga yeew bu mu yeewoo nag daal di téye loxo bi xool ko gis mu yaama mu daal di tiit waaye moom Moussa bi mu gisee mu yaama itam seytaane jàpp ko moom it li yaama di yëg moom it mu koy yëg mel nag seytaane dafa bëgg a dugg seen diggante noonu nag ñu tàmbali bëgg foo commencé di fóonante mu nekkoon nag lu doy waar lool sax fii la ñu yemale épisode 15 bi ñu jox leen di dajee épisode 16 bi ci lu yàggatul dara incha allah jërë ngeen jëf. Abonnez-vous sur Scène Production pour ne pas manquer des histoires et films très intéressants. Scène Production Islam Sakanam.